أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu suñu maxtaar ñu ngi lay nuyu jaaral ci yow suñu nuyoo mu àgg ci mboolem ñi nga xam ne nii ñi ñuy topp ci waxtu wi di la sant ni nga laytaay tem bi ak laytaay ji nga def nga ko ci mu am ñaari baat nag yoo xam ne ci làkku arab dafa mel ni dañoo jege lool bay benn dañuy fàddu as-saxaafatu wal i'laam ñoom ñaar bu ñu leen doon firi mën nañu wax ne saxaafa moom la ñu tuddee presse presse mooy saxaafa i'lam mooy information wala informé wala communication wala lu ci aju kon bu ñu nee saxaafa mooy métier mi métier moo xam ne nii li ko tax a jóg mooy dajale ay xabaar togg ko segg ko traité ko daal koy tuxal jëme ko ci nit ñi ñu mën koo jariñoo jaare ko ci jumtukaay yu baree bare lu mel ne rajo lu mel ne télé lu mel ne lu ñuy bind maanaam magazine wala journal wala internet wala site yu mel noonu ci lañ koy jaarale muy jàll ci nit ñi bu dee jëmmi communication bi nag wala information bi nag mooy li muy def la ñuy jàllale loolu la ñuy tuddee communication wala information wala informé wala yu mel noonu kon buñ ko pàccee noonu am na ci loo xam ne ni wàllum technique la maanaam métier la loolu bokkut ak li nga xam ne ni mooy liy jàll wax ji ñun nag li ñuy waxtaane tey mi ngi gën a jëm ci liy jàll te mooy wax ji ni ko sëñ bi waxee léegi lislaam naka la gisee communication bu tegu ci yoon ak yan sart la ko tërlal ngir communication boobu mën a jaar yoon waxtaan wi foofu lay gën a jëm dañuy gis nag ne bu ñu ne ku wax communiqué nag wax jëfandikoo kàddu jëfandikoo ay baat xëy na foofu nag fi la jafe-jafe bi judd ci wàllu communication foofu lay juddoo ndax ku xam kàddu ak diisaay bi ak lim mën a jur ak lim mën a def ak lim mën a yàq da nga xam ne képp koy jëfandikoo war ngaa xam ni nga koy jëfandikoo ndax dañuy wax ne kàddu moom mooy képp koy defar wax ngay jëfandikoo kon lépp loo gis bu baax ci àddina bi wax bokk na ci la ko baaxal ak la ko defar lépp loo gis mu jagit la ko jagal wax ci la bokk la bokk sax moom mooy la ko defar waaye itam lépp loo gis mu yàqu ci àddina bi tam booy xool ca la koy yàq bokk na ca la koy yàq wax moo tax boroom xam-xam yi dañu naan la boo ngay wax sa làmmiñ baat bu ngay bëgg a wax sa gémmiñ na nga ko wëndeel ci sa biir gémmiñ lu mat nangami junni yoon door koo génne ndax dañoo wax ne mi ngi mel ne balu fetal bi ngay bëgg a tiire balaa nga koo tiire moom jàngatal bu baax a baax xoolal bu baax ndax bu la xasee rëcc ba nga tiire moom mënatoo koo dabi mënatoo koo jëli naka noonu tam kàddu gi wala wax ji fexeel ba balaa nga koo yëkkati di ko wax nga togg ko ba mu ñor settantal ko segg ko ba xool ni nga koy génnee ndax su xasee génn moom rëcc na la te mënatoo koo jëfandikoo. moo tax li ñuy wax média nga xam ne moom mooy jumtukaay bi gën a mag bi ñuy jëfandikoo ngir tasaare ay wax te wax nag la muy yàq lu mu gën a tasaaroo yàqu-yàqu bi gën a bari naka noonu tam la muy defar lu mu gën a tasaaroo defar ga gën a bari te ku nekk xam ne ne média bi léegi mooy jumtukaay bi gën a ëpp solo bi ñuy jëfandikoo ngir tasaare ay wax ci jamono ji moo tax dañ koy tuddee ñeenteelu doole ci réew mi doole yi ñeenteel bi ci réew mi wala quatrième pouvoir moom lañ koy tuddee ci waxin te boo koy xool dëgg-dëgg sax mën ngaa jàpp ne mooy ci njëkk mooy bi ci ëpp doole. boo xooloon pouvoir yi mooy pouvoir bi nga xam moo ne ci loxol ñiy jiite réew mi ak bi ne ci loxol àttekat yi ak bi nekk ci loxol ña nekk ca tëral yoon yi ak bi nekk ci loxol taskatu xabaar yi booy xool bi nekk ci loxol taskatu xabaar yi. moom moo ci ëpp doole ndax moom mooy ki nga xam ne nii mën naa daaneel ci lu gaaw ñi nga xam ñoo yor nguur gi di ko saytu pouvoir bii di maanaam média bokk na ci li gën a gaaw ci jëfandikoo ko ngir daane pouvoir boo xam ne nii mooy jiitam réew loolu ci la bokk. moo tax day mel ni pouvoir yëpp dañ koy ragal dañ koo ragal ñenn ñi sax dañuy taw ci gannaawam ngir daw dab ak cofeel gu ñu dox seen diggante ak moom te loolu lu wér la képp ku xam média da nga ko ragal képp koo xam ne xam nga média ak lim mën a def ak lim mën a jur da nga ko ragal ndax ci gaaw ak gaawaay goo xam ne nii am na ci moom. bokk na ci li tax ñu koy ragalit mooy li jëpp ci média dafa ne ci ay loxo yoo xam ne nii mën naa am nañ waruñ nañ war a xamee kàttanu média xamewuñ ko noonu nañ xamee nañ war a xamee li média mën a yàq mën naa am xamewuñ ko noonu loxo yooyu moo ci ëpp léegi mu doon it rawatina suñu réew yi ñi ko yor ñi ci ëpp nekkuñ ay professionnel maanaam nekkuñ ñoo xam ne nii daa doon seen métier ñu jàng ko ba xam sew-sew yi ci aj yëpp ñu xam ko doon xam yor ko donte nag nit mën ci àgg foo xam ni sax ka ko jàng àggu fa waaye métier la comme métier yëpp nga xam nañ ko war a jàng ñu tàggat la ci nga xam la ci sew sew yi ci bari yëpp fekkente nag da ngaa nekk ci métier te métier mi tàggatuñ la ci formé wuñ la ci ba nga xam ko dëgg-dëgg ngir nga def ci ay njuumte wala nga def ci noo ci war defee dafay yomb loolu nag dafay feeñ ci média bi bu ñu xooloon nag àddina bi bëgg xam dëgg-dëgg solos média ci dundinu askan wi bu nu xooloon tey média yu mag yi ne ci àddina bi nga xam ne ay réew yu mag ñoo ko moom ay milliards lañ ciy def ci xaalis am na groupe yoo xam ne tey bu ñu la waxoon tey budget ba ba koy doxal am na réew yoo xam ne seen budget àggul foofu te ñoom loolu foofu dong la jëm am na ñoo xam ne lañuy li jëf jëfandikoo ci ay liggéeykat ay junni junni yoo xam ne ni am na yenn réew yoo xam ne ni seen liggéeykat àggul foofu te loolu ay réew yu bare ba dañ ko am muy média yoo xam ne ni yu am doole la ñu koy jëfandikoo ñoom nag buñ koy sos dañuy wax ne ñoom dañoo bëgg a liggéeyal doomu aadama yi ci kaw suuf moo tax ñu sos média yu mel noonu waaye buñ ko xoolee dëgg dëgg ba ca biir yu baree bari dañ ko ci jaarale ci biir ngir liggéey ci seenu liggéey tey média yu mag yooyu nga xam ne ni buñ ko tuddee ci kanam da ngeen ko xam moom la réew yu mag yi di jëfandikoo ngir mën a jëmbat ci ñun ak yëg-yëg wàññiku ci sunu biir maanaam réew yi nga xam amuñu doole réew yu am doole yi dañuy jëfandikoo média ngir mën a jëmbat ci seen biir ab yëg-yëg boo xam ne nii yëg-yëgub complexe de infériorité lañ koy tudde te mooy yëg-yëgub neew kee ngay jëflanteel du sa morom moom la ñuy jëfandikoo tam ba yenn cëslaay yenn valeur yi nga xam ne nii amul solo te duy baax ñu fexe ba jëmbat ko ci biir askan yi nga xam ne nii seen loxo jotul seen gannaaw kon yooyu lañ cey def muy média yu am doole ñi ciy defi milliards te daanaka ci làkk yépp la ñuy wax daanaka làkk boo jël muy làkk bu am solo ci àddina bi boo demee foofu da ngay fekk ñoo xam am nañ am nañ ci émission di ci wax di ci jàllalee xabaar kon yooyu la ko tax a jug dëgg-dëgg mooy liggéeyal ña nga xam ne nii ñoo ko moom. moo tax média dafa bokk ci ngànnaay yi nga xam ne nii li ñuy tuddee néocolonialisme te mooy maanaam colonialisme yu bees seen doxin yu bees yi média daf cee bokk léegi ku nekk xam na ne ña daan ñëw di ñu occupé. ñu leen di tuddee ay colonialiste bu njëkk dañuy ñëw indi soldat indi lu mel ne ay ngànnaay yi xeex ay ay char de combat indi ay fetal indi yu mel noonu léegi dootuñ joxe loolu léegi ci xel lañuy jaar ba coloniser la xel moomu nag bokk na ci li ñu ciy jëfandikoo média bii ci la bokk ci li ñuy jëfandikoo ngir mën a occuper xelu nit ñi ba mën a def ci ñoom liñ bëgg a def su ma la tuddoon tey rajo bu mel ni RFI nga xam ne nii France moo ko moom wala mu tudd la la voix de l'Amérique nga xam ne ni Amérique ñoo ko moom wala mu tudd la BBC nga xam ne ni Angleterre ñoo ko moom ak yeneen yu mel noonu wala boog sax agence de presse yi nga xam ne ni moo topp groupe yu mel noonu yooyu ay jumtukaay yu mag a mag la yoo xam ne ay milliards yi milliards yi milliards moom lañ ciy def ngir jàllale liñ bëgg waaye nga gis léegi impérialisme te mooy noteel gu bees gi ni ñuy jëfandikoo jumtukaay yooyu ba mën a fexe ba xalaatiinu doomu aadama yi ñi ciy soppaxndiku te duñ jóge fañ toog tey ci misaal bari na tey loo xam mën naa xew ci réew mi man bala ma koo gëm dëgg-dëgg damay jàpp RFI déglu ñu wax ko fa man naa am rajo Sénégal yëpp wax nañ ko waaye du ma doy li fekk dégguma RFI wax ko damay jàpp ne xabaar bi mën naa am wéragul ku nekk nag bi nga ciy tànn kee day tànn RFI kee tànn BBC kee tànn La Voix de l'Amérique waaye ñett yi moom mooy yi ëpp doole ci àddina bi jamono yi groupe yi ci la bokk boo Union soviétique moo ci amoon te ñoom ñu ngi deltu gannaaw ci wàllu xànn boobu loolu la ñu jëf ba nga xam ne xabaar boo déggewul foofa jële woo ko foofa da ngay jàpp ne xabaar bi wérut wala sax doo ko gëm lool lool. amoon na jafe-jafe bu yàgg naka jekk amoon na danger bu ci newoon waaye dafa gën a yokk léegi bi ñu àggee ci jëfandikoo li ñuy wax bande FM bande FM léegi rajo yëpp dañoo màcc jëm si di ko jëfandikoo lu tax ndax day tax nga gën a jege population bi gën a mën a leer ci ñoom gën a mën a def li nga def ci ñoom. ci misaal tey bu njëkk boo ma masaan bëgg a jàpp rajo London BBC bi wax arab mën naa am da ngay takk fil gu réeréer ci kaw puju néeg ba wàcce ko léeg-léegi mu leer léeg-léegi du leer léegi nag bu ñu ko jaaree ci bande FM bi nag léegi rajo lu mu tuuti tuuti da nga koy mën a jàpp fi mu nekk ni RFI ci Sénégal daanaka foofu nekk rajo lu mu tuuti tuuti boo ko bëggee jàpp da nga koy jàpp day leer nañ mooy gën a leer sax suñu rajo yi loolu nag day tax seen liggéey ñoom gën a mat te ñoom xam nañu tax ñu ko def moo tax yooyu nag waxtaane tomb bu mel nii danay am solo ngir ñu mën a xam dëgg-dëgg mbir mi waaye itam nu ñuy mën a fexe ba am loo xam ne ni dañ ko wottee jumtukaay yooyu ba nit ñi daw gi ñuy daw jëm te mën naa am mu wàññi ko wala boog nu ñuy mën a fexe ba am maanaam presse wala boog maanaam jumtukaay taskaayu xabaar yoo xam ne nii dafay am jubluwaay bu baax jubluwaay bu baax bu ñu ko waxee mooy jubluwaay boo xam ne la koy tax a jóg mooy liggéeyal doomu aadama yi ci kaw suuf waaye nag teg ko ci suñu pas-pas teg ko ci suñuy cëslaay teg ko suñuy aadaat ak suñuy cosaan ba nga xam ne nii suñu xel dana ko mën a nangu te la muy yàqal du bari loolu nag mi ngi tàmbalee ci former ki koy jof ki toog ca rajo bay wax wala ci télé bay wax formation bañ koy defal fañ koy sukkandiku ñu delloo ko ci li ma tuddoon léegi. waaye itam duñ yem foofu danañ fexe dem ba former kiy déglu ba mu xam nu muy déglu xam ngeen ne déglu moo gën a jafe wax fi mu ne nii capacité d'écoute maanaam nga am man-manu déglu. moo gën a jafe fuuf nga am man-man wax moo tax nit dañ ko war a former ci ni muy dégloo bu ñu la former ci nooy déglu ba nga xam ko mooy tax lépp loo dégg da nga xam la nga cey jël ak la nga cey du jël da nga xam la nga cey gëm ak la nga cey dul gëm da nga xam la nga cey la nga cey maanaam loo na nga koy jariñoo da nga koy xam ci tënk su fekkee amoo ko nag da ngay jël lépp ba tax loo dégg rek jàpp ne noonu la bu njëkk da nga daan gis nit koo xam day taxaw temm ci xulóog yow boo koy xamul la nangam maa ko dégg ci rajo waa dégg nga koy dégg ci rajo taxul mu taxul mu wér boo fekkoon am nga capacité d'écoute maanaam soo am nga mën-mënu déglu da nga xam nekkul ne lépp loo dégg ñu wax ko ci rajo wala nga seetaan ko ci télé loolu lu wér la kon dañ koy tàmbale ci formé nit ki kiy def maanaam tas taskatu xabaar bi ci boppam journaliste bi ci boppam ñu formé ko waaye itam kiy déglu ci boppam itam nga xam moom moom moo ko tax a jóg moom itam ñu formé ko ba kiy wax bu waxee mu xam na mu koy mën a jariñoo dana feeñ tam ci am gum am solo ñu waxtaane wàllu tasum xabaar ak li ci jëm mooy ñu jàpp ne taskatu xabaar mission la yor maanaam dañ ko togg jëf wala boog ab yitte la yor yoo xam ne nii ju mu war a doxal ci àddina bi la yitte ji mu yor moo yitte yi yonent yi yoroon gaa yu baax yëpp yoroon ko defarkat yu mag yëpp yoroon ko ñoom yitte du mel noonu la yor ndax ku nekk xam na ne communica communication mooy ñëpp koy jëfandikoo képp kuy wax ñu lay déglu rek yaa ngi jëfandikoo communication kon yonent yi dañ ko daan jëfandikoo sëriñ su mag si daan ko jëfandikoo defarkat yu mag daan ko jëfandikoo kon nag ñoom mission bañ yoroon moom lañ jàpp ne kii wax tey ci taskatu xabaar moom it mission boobu la war a mën a yor mission nag bu ñu ko waxee mooy yitte ji wala boog yëg-yëg bi tax nit ki jàpp ne moom moo tax muy dund ci kaw suuf li nga jàpp ne tax li nga jàpp ne yow tey moo tax ngay dund ci kaw suuf te sa yëngutu yëpp yaa ngi koy jëmmale ci nooy mën a fexee ba jëmmal yëg-yëg boobu ku nekk loolu la ñuy tuddee sa mission day wuute nag kem jubluwaay ni mu wuutee kem finalité yi ni mu wuutee kem yitte yi ñu am ci àdduna ni mu wuutee noonu lay wuutee am na koo xam ne mission ci kaw suuf moom mooy fexe ba leeralal nit ñi yàlla lu tax mu wàcc ci kaw suuf loolu rek mooy seen yitte ci kaw suuf mission boobu la ñu yor mooy fexe ba nit ñi xam lu tax yàlla wàcc ci kaw suuf lu tax yàlla bind àdduna bi loolu mooy seen yitte yitte ju mag la yoo xam ne nii gaa yu baax yu bare bari ci la ñuy liggéey jàngalekat bi ci misaal yitteem ci kaw suuf mooy lan mooy fexe ba nit ñi dañu réer xam-xàmmee xam-xàmmee lu baax ak ku safaan ñu mën koo xàmmee loolu mooy yitteem kon yittee wala boog mission journaliste bi wala boog taskatu xabaar yi mooy fexe ba xam maanaam xabaar bu wér wala boog li muy jàllale ci ka nga xam moo koy déglu mu doon lu wér loo xam ne nii daf ko koy jariñ waaye tam mu xam waxtu yi mu ko koy joxe ak façon bi mu ko koy joxe ku nekk kem nañ la koy joxe ak façon bi ñu la koy joxe ak waxtu bi nga xam ne nii ci lañ la koy jox loolu nag ci la ñuy gisee ne yàqu-yàqu yu baree bari yoo xam ne ni am na ci wàllu yar ci misaal wala li ñuy wax régression maanaam dellu gannaaw ci wàllum social dundinu askan wi dellu guñ ci dellu gannaaw yàq-yàq yu bari yi am ci wàllum koom-koom économie bi yàqu-yàq yu bari yi am ci wàllum politique bi ëppal gi ci wàllum diine ji yooyu yëpp mi ngi juddoo ci maanaam ñi yor gàddu woon mission bu war a leeral nit ñi mbir yi ba mu leer ci ñoom ñoom seen mission dañ ko fay maanaam dañ ko dañ ko doxul nañ ko war a doxe ñoo ci amul gàttañ ndax ku nekk xam ne ne leer gisin wu leer ak ñu leer la ci àddina yow lan lii mooy ci nekk war a nekk si taxawaay bu leeree mooy tax la ngay def nga man ko mooy tax la ngay def tam nga mën koo defee na nga ko war a defee ci façon yëpp kon gis nañu yàqu-yàqu yooyu yëpp la koy jur mooy ne ñi waroon a leeral xëy na nañu war a leerale te taskati xabaar yi ci lañ bokk ak képp koo xam ne yaa ngi communiqué ñu lay déglu ci nga bokk bu leerul mooy waral yàqu-yàqu yooyu nga xam ne tuddoon naa ko léegi. loolu tam bokk nañ li koy jur mooy nga yor média boo xam ne nii amul jubluwaay wala boog jubluwaayam leerul wala daf ko amul aslan am na ñoo xam ne nii tey boo leen waxoon ñi ngi groupe de communication boo xam ne boo leen waxoon tey lu leen tax a jóg dëgg-dëgg duñ la woon wax lu leer nañ wala sax amuñu ko wala sax ñuy jaxase ñaar maanaam ne jaxase loo xam lu baax la ak loo xam ab safaan la da ciy am man ngaa gis koo xam dana la man média bi ma yor lépp laay jàllale te boo dee jàllale lépp kon yaa ngi yàq boo doon bu fekkee yaa ngi defar itam yaa ngi yàq ci fànn kon da ngay am benn jubluwaay da ngay am orientation orientation benn lay doon damay defar wala damay yàq waaye yàq ak safaan safaan na ko lu baax mu nii si la na boole te loolu léegi da nga koy gis moo tax ñu ne waxtaane tasum xabaar moo xam ne nii day am jubluwaay bu leer dina am solo kon ñu bàyyi xel ne képp koo gis lépp loo gis àddina am na jubluwaay xanaa kay dañ naan jubluwaay ba baax na wala jubluwaay bu baaxul tey képp koo gis muy communiquer am na jubluwaay waaye am na koo xam jubluwaayam ci wax ji moom weesuwul wut alal maanaam média bi mu yor moom wutukaayu xaalis la ko def te lépp luy tax mën jaa gañ a xaalis loola dana ko def am na koo xam ne nii daraja moo tax mu wut ko lépp loo xam bu ko defee moom dana ko yëkkati mu am li mu bëgg loolu la ca bëgg am koo xam siiw dong moom la bëgg moo tax mu créé am médiam yu mel noonu yooyu yëpp kon ku nekk am nga jubluwaay xëy na kon jubluwaay ba la ñuy wax ndax baax na wala baaxul loolu itam leneen la waaye ñun jubluwaay bi ñu jàpp ne moo baax mooy jubluwaay boo xam ne nii la ko tax a jóg mooy yéwénal dundinu askan wi orienté leen jëmbat ci nit ñi ay jikko yu baax suñuy cosaan amoon nañ ngor amoon nañ fulla amoon nañ fayda yooyu amoon nañ kersa yooyu ñu fexe ba delloosi ko jëmbat ko ci nit ñi jaare ko ci média bi loolu jubluwaay yu baax yi ñu jàpp nañu ci la bokk kon ni ko sëñ bi tënkee léegi bu nu bëggee tasaat tomb bi mën nañu wax ñetti ñetti mën nañu koo tënk ci ay tomb bi ci njëkk danañu wax communication ci boppam mooy lan ak ñetti was ñetti ponk yi nga xam ne nii communication boo gis ci lay tënku mooy kii kiy joxe ki ñuy tuddee émetteur maanaam mooy kiy joxe. kiy communiqué di wax ñuy dégg ak bataaxal message bi nga xam ne nii moom la war a jàllale moom ci la bokk ak ka koy déglu ñett ñi communication ba gis lu mu néew néew ñett yi mënuñ cee ñàkk mooy ki koy joxe la muy joxe ak ki koy jël bu ci nekk nag am na charte yu war a daje ci moom wala boog l'islam ji ñu war a waxtaan ñun am na charte yu mu ko tëral yoo xam jàpp nañu bu ca jaaree la muy def dana sotti suñ jegee ci loolu bu ñu ko leeralee ba noppi dañu wax ci safaan bi ndax léeg-léeg mbir itam dañ koy xamle ci safaanam léeg-léeg ngay xamle mbir jël safaanu mbir xamlee ko ci kon bu ñu jëloon tuuti ci yàqu-yàqu yi nga xam ne nii maanaam tasumkaayum xabaar yu amul jubluwaay bu baax mën na koo jur ci askan bu ñu ko tuddee dana tax ñu xam taskaayu xabaar yu baax yu am jubluwaay bu baax lan la mën a jariñ te mooy taskaayu xabaar yi nga xam ne nii ñoom commerce la ñuy def moo leen tax a jóg wala boog dañ koy tuddee seen gagne-pain gagne-pain mooy li ngay li ngay dunde li ngay dunde fa nga koy jëlee loolu la ñuy tuddee loolu wala boog ci tënk mooy presse boo xam ne nii da nga koy luye da nga koy fay mu defale li nga bëgg loolu nag mooy safaanub ñun jumtukaay bi nga xam ne ni jàpp nañ ne moom la lislaam jàpp ne mooy bi wér kon buñ ne communiquer rek mooy jotal jotal képp kuy jotal rek di jotal ci ni mu jëm ci nit ñi rek la ngay wax di jotal ci nit ñi rek mën nañu jàpp ne yaa ngi communiquer buñ nee informer nag ci wàllu bi mooy tasaare xabaar ak ay dëgg ak i gisiin ak i xalaat nga dajale ko tasaare ko ci biir nit ñi ci jëfandikoo jumtukaay yi nga xam ne ni moo ne ci sa loxo la tax nga koy def nag mën naa doon yu baree bari mën naa am da ngaa bëgg a woo nit ñi ci mbir ngir convaincre leen wax leen ko ngir ñu mën koo gëm ba mën ca ànd ak yow. wala nga jublu ca yeete nit ñi ba lu nekk ñu xam fu ñu teg seen tànk wala sax nga am position boo xam ne nii moom nga texaw te bëgg nit ñi ñëw jàppale la ca yooyu yëpp dañuy jàllale xabaar ci nit ñi ngir loolu mën caa juddoo. moo tax kenn ci ñiy gëstu foofu dañoo wax ne tasum xabaar moo gis dafay refléter maanaam dafay dafay safaan wala boog dafay wane tolluwaayu mbooloo ma ñuy dund maanaam tey yu bari ñu jàmbat ci tasum xabaar yi mi ngi delluwaat ci biir nit ñi maanaam melokaanu nit ñi mooy feeñ ci biir tasum xabaar yi ndax ñoom yëg-yëgu nit ñi day feeñ ci ñoom orientation bi nit ñi am day feeñ ci ñoom ak yeneen ak yeneen lépp loo xam it dañ ko yëg suñu biir day feeñ ci ñoom am keneen koo xam dafay tàqale ci biir ñett yoo xam ne dañoo jege lool dañ leen di jaxase ak léegi am na koo xam la muy def irlam la tudd communication la tudd am koo xam la muy def dihaaya la tudd propagande la tudd am koo xam la muy def irlan la tudd publicité la tudd ci yeneen làkk yi ñett yooyu yëpp boo ko xool di dugg ci biir communication moo tax ñu ne bu fekkente ni communication dafa ne communication bu positif boo xam ne nii lu baax rek ko tax a jóg liggéeyal askan wi moo ko tax a jóg jubbante askan wi moo ko tax a jóg boobaa dañ naan loolu mën nañ ko tuddee maanaam presse wala communication bu jaar yoon waaye nag su fekkente ne kay wax la ko tax a jóg mooy xëcc nit ñi ñu ñëw ci wetam buy wax du wax ak xel yi waaye yëg-yëgu biir yi lay waxal am na am na ñoo xam bu ñuy wax waxuñoo xelu nit ñi waaye sentiment nit ñi moom la ñuy waxal yëngal ko ngir xëcc leen ca lañ bëgg ñoom ñu fekk si leen ca boobaa loolu propagande la tudd maanaam mooy dihaaya su fekkente ne da ngay publicité mooy koo xam ne nii ab produit sàngam mi ngi nii da ngaa bëgg nit ñi jënd ko nga di ko tagg di ko baaxal di ko rafetal di ko xemmem loolu nit ñi ba nit ñi jënd ko boobaa la ngay def i'lan la tudd mooy publicité moom lañ koy tudde boobaa ñett yooyu nag léeg-léeg dañ leen jaxase ñu baree bari tey ñu ngi jàpp ne la ñuy def maanaam wàllum information la def la ñuy def du information ñoom dañuy propagande ñu bari jàpp la ñuy def information déer informé wuñu waaye ñoom dañuy publicité loolu nag bu jaxasoo dafay indi yu baree bari moo tax li ñuy wooye ci ñun lu baree bari ci presse jamono ji wax dëgg yàlla propagande la gën a jege ak publicité te ku nekk xam na ko booy déglu rajo yi léegi wala ngay seetaan télé yi da ngay gis fànn yooyu ni mu ci noté loolu am jeexit jaxas gu ñu koy jaxasit dana jur ay yàqu-yàqu yu baree bari ci fànn boobu kon communication ni ma ko waxoon léegi ñetti tànkam yooyu bu nekk danañ ko jël mooy mursil mooy émetteur mooy kiy joxe risaala bi mooy li muy joxe bataaxel bi mursal ilahi mooy ki koy déglu mooy récepteur bi wala boog kiy gàttandu waxtaan bi ñett yéen bu ñu ko xoolee dañuy jàpp ne kiy joxe te mooy émetteur bi mooy ki ci ëpp solo mooy ponk fondamental bi nga xam ne nii bépp communication moom moo ci ëpp solo ndax moom li ñuy wax moo koy gé moo koy moo koy ñaare moo koy tëral nañ koy waxee itam li ci ëpp ci moom lay dellu moo tax daanaka moom bu jaaree yoon rek lu baree bari ci wàllum communication dana mën a jaar yoon moo tax xëy na charte yëpp wala boog dawaabit yëpp wala règlement yëpp ci lislaam buñ koy wax ci kooku lay dellu si ndax moom su jaarewu yoon rek li ci des jaare la ko yoon xëy na du jafe lool ngir nag communication kon mën a taxaw ci warteefam ci gën jaa mati anam mën a joxe bataaxelam dëgg-dëgg jox ko ak ji mu yor mënta ñàkk mu am ay critères mënta ñàkk mu am ay règlement ak i loi yoo xam ne nii moo koy tënk mënta ñàkk mu am ay valeur ak i cëslaay yoo xam ne nii bu demee ba nar a tarxiis ca lay dellu ngi gën mën koo gindi moo tax ci lislaam sëñ bi ñëw na sëñ Maxtaar ñëw na ci léegi ku jox fulaak fayda wàllum communication l'islam ci la bokk xam nga yonent bi alayhi salaatu salaam bokkoon na ci communicateur yi gën a mën a communiquer ci àdduna bi ci la bokkoon képp koo gis yàlla togg ko jëf rek maanaam ci togg ko bataaxel bu mu war a jot li rek dana ko may kàttanu mën a communiquer ndax dafa bokk ci melokaani yonent mooy mooy tabliix tabliix mooy nga mën a jotal boo mënta jotal doo mën a doo mën a nekk yonent ab yonent mënta lu mënta yooyu yooyu du ko dal ndax bu ko jotee du mën a communiquer te communication dafa bokk ci maanaam arkaan wala bokk pon ponk yi nga xam ne nii yu fondamental la ci ab yonent moo tax l'islam joxoon ko solo lool waaye nag buñ ko jëlee fa da ko wutal ay tënk yoo xam ne nii li ci ëpp ci alxuraan lay dellu ndax alxuraan mooy delluwaayu jullit yi te yooyu nag bu ci communication tënkoo day tax mu mën a bàyyi jeexit bu baax li ñuy tuddee opinion publique opinion publique mooy gisiinu nit ñi nit ñi ci mbooloo mi ni muy gisee ni ñuy jàppee mbir loolu mooy opinion publique loolu nag dañ koy liggéey dañ koy defar ku nekk xam ne dañ koy defar bokk na ci jumtukaay yi ñu koy defaree nag mooy mooy jumtukaay yu tasukaayu xabaar yi. safaan boobu nag mooy communication boo xam ne nii dafay réeral nit ñi moom la yenn organisme yi nga xam yàqaleen tax a jóg yépp ñoom itam communication boobu moom la ñuy jëfandikoo ñooy fexe ba nit ñi seen réalité bi ñuy dund. ñu fexe ba duñ ko yëg dugal leen ci yeneen détails yu baree bari yoo xam ne nii mooy fexe ba ñoom seen xar kanam bi nga xam ne ni xar kanam bu ñàng la bu amul solo la ñu rafetal ko nit ñi bañ nangul ko suñu bopp nga xam tey ñun ñooy daw di jëm ci ñoom moo tax seen pratique yi nga xam ne ni yu ci yu pratique seytaane pire la ñu fexe ba nit ñi di ko nangu ci teeñ koy jaarale ñooñ ñi nga xam ne nii amuñuy dawaabit amul lenn lu leen di tënk jikko tënku leen diine tënku leen aada tënku leen cosaan tënku leen ñoom ñooy ñi nga xam ne nii information bu yàq li cëpp dañ koy jàllale loolu nag dëppawut ak jumtukaayu tasukaayu xabaar bu am jubluwaay ci lislaam bu ñëwee ci ki nga xam ne ni mooy mursil bi te mooy kiy joxe xabaar bi fii bu ñu neexee mën nañu ko tuddee journaliste bi wala ba communicateur bi almuhim daal mooy kii xabaar bi ki nga xam mooy jot li xam-xam yi mooy jot li xabaar xabaar yi muy jóge ci moom am na charte yi jikko yu baree bari yoo xam ne nii war nañ koo séentu ci moom te ci lislaam da koy séentu ci moom bi dëkk mooy dëggu sidq mooy dëggal ci lislaam ku nekk xam ne dañ laa wax ne la lépp loo jot muy xabaar di dég-dég balaa nga koo jàllale war nga ko vérifier bu baax a baax war nga ko wóorlu gëstu ko natt ko segg ko seggaat ko ba mu wóor la li nga dégg dëgg la nga door koo tuxal moo tax mu ñëw ci alxuraan mu wax ne yéen ñi nga xam ne gëm ngeen léeg-léeg kàccoor dañ leen indil xabaar kàccoor bi leen indi xabaar na ngeen fexe ba vérifier ko bu baax door koo jàllale ndax bu ngeen ko deful da ngeen tooñ aw nit ci ëllëg leen ko rëcc booba fekk rëccu day wees defe naa loolu sart bu am solo la ñàkk sàmmonteeg sart boobu jur na lu baree baree bari ci ay yàqu-yàqu yoo xam ne ni yu bari la te boo xooloon tey ni ñuy dundee ci àdduna bi jafe-jafe yi fi am xeex beeg xuloo beeg yàqalante bi ak xew-xew yoo xam ne ni ëllëg ku nekk yaa ngi tiit ndax ëllëg dana baax ak du baax loolu lépp li jëpp la ko jur mooy lan mooy xabaar bu ñu tuxal te wéru li jëpp loolu moo koy waral kon xabaar balaa ñu koo tuxal yow miy joxe xabaar xabaar bi balaa nga koo tuxal na nga ko vérifier bu baax a baax waaye ku nekk xam ne ne tasukaayu xabaar yu baree bari mën naa toog fii rek jël sama téléphone téléphone ne Touba nangam ak nangam xew na fi duñ ko vérifier daal koy jàllale directement léeg-léeg sax ñu jël la direct neen nañ la def en direct yow ngay wax bu ko defee la ngay wax lépp dara mën na caa bañ a wér te mën naa taalum réew. kon vérifier xabaar bu mu mënti doon waris na ko vérifier bu baax baax émission yi ñu te wax sa xalaat ci misaal nga xam dañ koy ubbi ku nekk wax lu la neex la ngay wax la ñuy wax ñi cëpp la ñuy wax li ci wér bariwut yooyu mën naa yàq yu baree bari tey baraana koo gis koo xam ne nii tuumaal nañ ko mën naa am tuumaal nañ ko ba jàpp ko ba tëj ko te da tax ñu tëj ko dara warulu ko lu dul xabaar bu wérut mën ngaa gis deret yu baree bari ju tuuru ci dëkk la ko tuuru dara lu dul benn waay boo xam moo jékki-jékki yëkkati xabaar te xabaar bu njëkkati wérul man ngaa gis mbokk gu yàqu man ngaa gis boroom xam-xam yi ñuy yi ñuy yi ñuy tuumaal di leen tooñ di leen mettital te lépp mi ngi jukkee ci benn waay bu jël xabaar boo xam dara wéru ca mu jàllale ko mu ji ñu sukkandiku ca ba di leen teg lañ leen di teg kon dëggu vérifier information ci lislaam maanaam maanaam maanaam ci ponk yi ëpp solo ci tasam xabaar ci lislaam ci la bokk defe naa ñëpp it noonu lañ ko nangoo xëy na kay jëfe gi mooy des waaye théorie bi moom duñ ci wute bu baree bari beneen bi nga xam ne itam dañ ko sart ci kii joxe xabaar mooy li ñu te amaana amaana mooy nga am kóolute kóolute waxoon nañ léegi ne tasum xabaar mission la wala boog bataaxel la boo xam ne nii wala boog ndénkaan la loo xam dañ koo gàll ci loosu ña koy def ñu bari ci ñoom nag di def luñ mën ngir mën a la ñuy àggale ci nit ñi mu nekk dëgg goo xam ne nii dara du ko kooj loolu lañ leen sant mooy ndénkaan li nga xam ne itam moom lañ teg seen loxo kon nag ndénkaan na ku nekk xam na ne bu ñu la ko dénkee ku nekk lañ la dénk da nga ko war a sàmm ba jox ko ña la ko dénkoon te dara du ca sikk loolu mooy sàmm ndénkaan loolu yaakaar naa alxuraan ñëw na ci yàlla dafa leen digal yéen ñi nga xam ne ndénkaan dafa ne ci seen loxo ndénkaan li ngeen sàmm ko ba jox ko seeni borom. kon ndénkaan li ne ci loxol kii tas xabaar mooy la muy jàllale na fexe ba mu nekk dëgg goo xam ne nii dara kooju ko na fexe ba bu lépp loo xam ne nii. maanaam orientation boppam la moom ci boppam bu mu ca feeñ na fexe ba fa mu féete bu mu ca feeñ na fexe ba organe ba muy liggéey sax bu mu ca feeñ waaye xam ngeen ne fii organe de presse boo gis dafa am lu ñuy wax ligne de conduite ligne de conduite mooy li wala boog ligne rédaction moom dafa am ligne de conduite rédaction boo gis dafa am ligne de conduite bu ñu waxee rek da ngay xam fi ñu faree daanaka ci misaal te bu ñu ko doon misaal ci sunum réew tey maanaam organe de presse yi nga xam ni dañoo ànd ak nguur ak organe de presse yi nga xam ne nii ànd ñoo nguur foo dégloo seen information da nga koy daal di xam ndax ligne de maanaam rédaction dafa am ligne de conduite boo xam ne nii ci la ñuy jaar te loolu nag bu ñu bëggee joxe xabaar boo xam ne nii dara du ko kooj dañuy fexe ba ligne de conduite boobu waru cee feeñ te loolu tam duñu ci bàyyi xel kon liñ la dénk yow mooy nga fexe ba liy jàll ci kiy déglu na nekk dëgg kese goo xam ne nii dara kooju ko beneen sart ngeen moo xam day dellu ci waajooju ba tey te mooy ixlaas ixlaas mooy sellal xëy na dana dana xaw a niroog bi ma waxoon léegi waaye xaw nañoo wuti bële dañ la ko dénk nga war koo delloo bii nag sa yéene lay doon nit ki nga xam ne nii yow taskatu xabaar nga war a jàllale ay xabaar yoo xam ne nit ñi dañ koy déglu di ca war a jëfee di ca war a doxe lépp luy égoïsme maanaam sa bopp sa bopp war naa denc yow lépp loo xam ne ay intérêt yuy dellu sa jëmu dong la da nga ko war a fàtte mooy da ngaa war a dem ba fàtte sa bopp yow ngir ñi lay déglu li ngay joxe ci xabaar ak i information yépp na nga ko joxe loo xam ne nii sa yëg-yëg du ca feeñ say jubluwaay du ca feeñ yow daal li la tax a jóg mooy leeral leeral kese leeral rek mooy suñu yitte ñun maanaam képp kuy communiquer leeral rek mooy sa yitte kiy déglu nag moo xam moom nam nam koy déggee kooku xëy na daañu ñëw ci kanam tuuti yow daal boo leeralee ba mu leer nañ sa jaan wàcc na loolu xëy na li ma waxoon léegi day dellu si waat ci diggante propagande ak informé kii propagande mooy koo xam dafa bëgg la ñuy wax nit ñi fekk si ko ci waaye kii informé day informé rek ànd nañ càng wala àndu càng moom loolu du ko yitteel kon képp koo xam yaa ngi wax te xëy na ngaa bëgg la ngay wax nit ñi fekk si la ca nga xëcc leen yow informé too da ngay propagande loolu kon maanaam kii des xabaar war na ko bàyyi xel xëy na bu ñu jàngoon ñaari xadis yoo xam ñëw na ci xadis donte xagada xadis yu siiw day tënk li ñuy wax am na ci xadis yi ñu faral di nett li wax ne bokk na ci liy teg ne liy tegtal nit ki gëm na yàlla gëm ne bis penc dana am mooy muy wax lu baax wala mu noppi wax ju am solo la fi mu nekk nii tey ñun ñu baree bari ñun boo leen gëmoo gëmoo àllaaxira mën nañu xeex ak yow waaye ñu baree bari nañuy dox ak nañuy wax ak nañuy jëfe lépp leen luy wane ne gëm nañu buñ dee daañu dekk du ci am mu ne nag bu fekkee gëm nga ne yow bis boo dee ëllëg da nga dekk te yàlla dana la xisaab la ngay wax dee ca sàmmonte wax ju baax te bu jeexee nga noppi wala ñu ne na nga ca wax lu baax te ju baax fa mu ci yem nga yem ci beneen xadis ñëw ne la jullit dëgg-dëgg wala boog muslim muslim it xëy na comme dañuy communiquer léeg-léeg ñuy leeral la ci baax jullit ak muslim bokkuñu am nañu wuute xëy na ñu baatu muslim ñoo koy firee jullit waaye jullit moom ci ci ci jullit la jóge kon képp kuy julli rek mën nañ laa tudde jullit waaye muslim nag terme la boo xam moo gën a yaatu jullit foofu sax moo tax léeg-léeg jaxas gu ñu koy jaxase moom itam dana indi ay rëq-rëq yu baree bari ci biir mbir yi bari na koo jàpp ne muslim la du muslim mën naa ne ko jullit ne waaye du muslim moo tax ñëw ci xadis yonent bi ne muslim dëgg-dëgg mooy koo xam ne nii sa moroomi muslim yi mucc nañ ci saw làmmeñ ak sa loxo làmmeñ mooy jumtukaay bi kii tas xabaar bi muy jëfandikoo kon ñetti ñaari wax yi yonent yooyu buñ ko buñ ko seggoon rek tënk ko rek mën naa tënk sart yi nga xam war naa daje ci képp koo xam ne nii da ngay wax ñu lay déglu kon muslim moom du tuxal xabaar bu wérut luñ la ak ki la ko wax nu mu mënti toll ci yow boo gëstu ba mu wóor leen xabaar wérut bu fekkee muslim nga doo ko tuxal muslim dëgg-dëgg du tuxal xabaar boo xam ne ni day yee fitna ndax alxuraan moo ñu jàngaloon ne na ngeen moytu fitna te fitna dafay nelaw te yàlla ngi rëbb ku ko yee kon yow muslim nga doo wax lépp bépp xabaar boo xam ne nii donte dëgg la sax waaye wóor la ni boo ko waxee mu jur fitna ci biir nit ñi doo ko wax muslim dëgg-dëgg du tuxal xabaar boo xam ne nii ay ñaawteef la te loolu xam nañ ko tey am na organe de presse yoo xam ne nii dañoo spécialisé wu ci li ñuy wax fait divers fait divers mooy ñaawteef yi am ci biir dundin askan wi ñu koy siiwal ah yenn yenn yi nga xam kenn mënu ko wax ci barab yu mel nii moom mooy seen liggéey yooyu la ñuy siiwal loolu boo de bu fekkee muslim nga doo ko def bu ngeen gisee nag ñuy ràññetle diggante muslim ak jullit fii tey ñiy wax ñii lépp koo ci wax danaan la man jullit la amu ci kenn koo xam ñoom ngaa taxaw ne ko doo jullit waaye nag du muslim moom waaw képp kuy def lii bu ñu la tuddee jullitam doo muslim kon muslim dëgg-dëgg mooy koo xam day jàpp ne tasum xabaar moom da koy jàppee jumtukaay bu am solo bu am wàccuwaay boo xam la ko tax a jóg mooy tasaare njàngaleem lislaam diine lislaam la ko tax a jóg mooy woote jëme ci yàlla woote jëme ci yàlla tam bu ñu ko waxee ci barab yu mel nii dañuy jàpp ne mooy wax nit ñi dee leen julli dee leen woor déedéet woote jëme ci yàlla mooy li teg nit ñi ci aw yoon lépp loo xam day teg nit ñi ci yoon ba ñu mën a dund dund gu jaar yoon loolu mooy woote jëm ci mooy siraatal mustaqim siraatal mustaqim mooy loolu mooy nga teg nit ñi ci yoon wu jub loolu mooy mooy woote jëm ci yàlla moom lay tekk fii xëy na nag jullee woor mën naa dugg ci biir ndax lislaam système la boo xam dafa mat dara bàyyiwu dara lépp luy détail ci biir àdduna bi dundil ak nit ñi daf koy indi kon ñun dañu war a jàpp ne kon tasukaayu xabaar jumtukaay la boo xam dañu ko war a jëfandikoo ngir orienter nit ñi teg leen ci yoon wu mel noonu kon sart boobu am na solo mooy sellal ci kii tas xabaar beneen sart ngi nii boo xam ne moom it am na solo te mooy sàmm secret sàmm secret maanaam mbóot mbóot nga di ko sàmm ku nekk xam na ne booy liggéey ci métier tas xabaar secret yu baree bari day daje ci yow day daje ci yow nga di ko xam. ndax nit ñi ku bëgg lu ne lañ lay wax daanaka yow li xew lépp da nga koy xam léegi nag yow da ngaa war a sàmm secret secret nag ku nekk da nga ko am am na secret boo xam ne nii nit ki la yitteel boobu la ñu tuddee vie privée ku nekk da nga ko am loolu loolu lekk nekk taskatu tas taskatu xabaar wax dëgg yàlla vie privée doomu aadama nit ki secret nit ki xam moom dong moo ko moom war nga ko sàmmal. am na secret boobu secret familial la famille bu nekk am nga ay secret yoo xam ne da ngay nëbbu seen biir loolu itam leen nekk loolu nekk nekk taskatu xabaar war ngaa fexe ba mbóot yi nga xam ne nii famille bu nekk da nga ko am nga sàmmal leen ko am lu ñuy tuddee secret d'état état bu nekk ay état secret ay secret moo ko yor secret yooyu ko yor itam loo ko xam-xam-xam war nga ko sàmm ba doo ko génne ci kaw mbedd mi moo tax dañuy wax ne nekkul ne lépp lu ñu xam moom la ñuy siiwal loolu nag boo ko xoolee da gis ci baax a baax ni muy feeñe ci taskati xabaar yoo xam ne nii dañuy wuññi secret nit ñi di dugg ci biir nit ñi naan damay def enquête enquête laay def maanaam mbóot yi làqoon yépp nga ñëw weer ko ci digg mbooloo mi dugg ci biir service état bi xam secret yi ci nekk yépp génn ne damay def chronique daal koy jël tas ko ñëpp di ko gis loolu ku nekk gis na jafe-jafe yi muy jur problème sociaux yi muy jur ci biir askan yi maanaam biir njaboot yi biir réew yi yàqu-yàqu yu mu ciy jur foofu nag xëy na dana laaj ñu taxaw fi tuuti maanaam maanaam nëbbu secret nag taxut nga gis loo xam leer na leen bu ñu ko nëbbee day yàq te la muy yàq lu am solo lay doon ci dund askan wi moom loolu dañ koy wax ñëpp xam ko ndax bu fekkente ne nag bu ñu ko waxul la muy yàq dana bari lool boobaa day laaj nag ñu wax ko ba ñëpp xam ne lii xam nañ ko bu ko defee ñu mën koo moytu loolu bokkut ak nëbbal nit ay secret kon foofu xëy na dafa war a am li ñuy wax tadaru ci arab tadaru ci arab mooy booy maanaam booy informer yëf yi dañ koy jox ay ay niveau ay niveau lay doon maanaam pari jéego ngay dox am na loo xam dañ koy waxtaanee ci biir néeg bi su sottee ca biir néeg ba baax nañu yemale ko foofu su fa sottewut ci biir néeg bi ñu génnee ko ci ëttu kër gi su sottee ci ëttu kër gi baax na su sottee ëttu kër gi yóbbu ko ci penc ma boobaa yóbbu ci penc moo fi moo tax am na yoo xam ne nii dañ ko yóbbu ci penc ñëpp xam ko ndax waxtaan nañ ko ci biir néeg yi fajiwul ñu waxtaane ko ci biir ëttu kër yi fajiwul kon dañ ko indi penc mi ñëpp xam ne lii moo am ku nekk jël ci say responsabilité loolu bokkut ak li may wax kon sec maanaam maanaam sàmm secret bokk na ci li nga xam ne nii l'islam daf koo sant kii tas xabaar kon l'islam daf ne la li li ngay wax na nekk lu rafet li ngay wax na nekk loo xam ne luy jariñ la du doon luy yàq bokk na ci maanaam yi ñuy sart ci kii tas xabaar te di ko delloo ci lislaam tam mooy la muy wax bokk ak na muy mel moom ci boppam yow miy communiqué na nga fexe ba li ngay wax nit ñi di leen ko leeral gàtt gàtt bu ñu ko xoolee mën koo gis ci yow wala boog mu doon loo xam dana feeñ ci yow moo tax duñ mën a nangu ànd ak koo xam ne nii saa yoo xëyee ci critique ngay xëy yaa saa yoo xëyee yaa ngi critiquer nit ñi ba noppi la ngay wax nit ñi di ko critiquer ci ñoom yow sa bopp nga di ko def tey bari na ñoo xam ne ay taskat xabaar lañ saa yu xëyee ñi ngi wax ne ger dafa tasaaro ci réew mi di ko jàmbat di ko critiquer di wax ñi koy def sikk yi ci nekk ak yu mel noonu ba noppi léeg-léeg benn benn ci ñoom di jëfandikoo ger loolu xam nañ ko am na ci ñoom ñoo xam dañuy luye seen xalima dañ la koy luye tey léegi mën naa am na wax du ñëpp waaye am na ñoo xam tey mën ngaa toog fii am loo xam da ngaa bëgg article boo xam da ngaa bëgg ñu bindal la ko am fooy jaar ak ñoom ñu bind ko tasaareel la ko ñëpp xëy gis ko loolu fekk na da nga am fooy jaar ak ñoom loolu am na ñëpp xam nañ ko defe naa ne luñ xam la loolu nag dafa tasaaroo ci biir askan wi yëpp. moo tax su fekkente ne da ngay wax ak nit ñi ne leen bu kenn jëfandikoo ger fexeel yow tam bu bul jëfandikoo ger su fekkee nag da ngay wax nit ñi bu leen def nangam ba noppi di ko def nag lay tax nit ñi weddi la na la wóor ne yow yaa ko teg sa bopp te yàlla nag sunu borom subhanahu wa taala ŋàññi na kuy jëfe lu mel noonu ci fànn yu baree bari wax na ci alxuraan ne yéen ndax da ngeen di déggal nit ñi jaamu yàlla ba noppi fàtte seen bopp loolu bokk ci mbir dee leen julli dee leen def nangam lu baax lu nga di ko wax ba noppi yow mel na li ngay wax da nga cee bokkul loolu itam nangu ko dellu waxaat ne yéen ñi nga xam gëm ngeen yàlla fexe leen la ngeen di wax na doon la ngeen di jëf bu leen wax mukk loo xam ne nii di ngeen ko jëfe mu ne loolu bàkkaar bu mag a mag la boo xam ne nii ngay wax loo xam ne nii doo ko def am ci xalaatkat yu mag yi njëkk yi koo xam ne nii da ko wayoon ne bul aaye nit ñi jikko ba noppi di def lu mel noonu nee na soo ko defee gàcce gu mag a mag ngay teg sa bopp te maanaam bàkkaar bu mag a mag moo la cay fekk. keneen keneen tënkaat ko ne mooy waajoo xam ne nii moom ragalul yàlla ba noppi di digal nit ñi ñu ragal yàlla nee na kooku mi ngi mel ne mét docteur boo xam ne nii day faj ba noppi te moom ci boppam moo feebar moom moo war a faj ba noppi door dem faje ji kon yooyu tam fexe ba li ñuy waxtaane di ko jot nit ñun tam ñu fexe ba loolu ñu bañu caa gis ñu bañu caa gis te bari nag yoo xam ne nii maanaam ay jàdd-jàdd yoo xam mi ngi am te ñenn ci taskati xabaar yi di ko def lu mel noonu moo koy indi tey wuññi sutura yi nit ñi siiwal seeni ayib te doo ci am benn yëg-yëg moo ne kenn bëggul ko siiwal sa ayib bu la wóoroon tey yow maanaam ka ngay wax maanaam di siiwali ayibam dafa am am na lu baree bare lu ne ci gannaaw ba noppi nga nga nga nga wuññi ay se nga wuññi ay suturaam ci kanam mépp mbooloo mi tey ku la ko defoon yow du la neex kon da ngaa waroon jël sa bopp nga teg ko ci place kooka ba xam yow bu ñu la ko defoon dan la neex lépp looy def nit moom lépp lu ñuy def mën na koo natt ci boppam boo ko natt ci bopp rek mu wóor la ne yow bëggoo ku la ko def loola jàppal ne ña ngi koy def tam bëgguñ ko ko def kon bul bul bul bul def lu mel noonu bul aaye ger ba noppi di ko jël bul tuumaal nit ñi tuuma joo xam tegoo ko fenn ba noppi bu ñu waxee nga ne man sama sama ressource du ma ko révélé loolu la ñuy wax ñu bare ba da gis ñu ne wax wax ju garaaw ñun la foo ko waxee foo ko jël ngeen du ma ko wax ndax sama samay source du ma ko révélé du ma ko wax maanaam samay fi may jël samay xabaar am naa sañ-sañ ci du ma ko wax kenn loolu itam wax dëgg yàlla du lay wu leer loolu itam dafay am ñoo xam ne nii da ngay critiquer nangoo kenn ku la critiquer loolu itam dafay am fi mu ne tey taskat xabaar yu baree bari fu ñu toog ñu ngi critiquer doomu aadama te boo leen bëggoon a critiquer ñu la dooma jàngal sama métier waaye yow yow nag lu tax nga may sa bopp nag di jàngal ñu seen métier ba noppi yow nangoo ku la jàngal sa métier loolu itam ci ci yooyu dafay ñëw feeñ foofu kon nit ki nay fexe ba li muy wax na foog gàtt-gàtt ku ko xool na ko gis ci moom beneen sarta gi ni boo xam ne nii war nañ ko séentu ci kii tas xabaar mooy war ngaa respecter valeur nit ñi cëslaay yi ñu gëm ñun même boo ko gëmul war nga ko respecter yëg-yëgu nit ñi war nga ko respecter pas-pasu nit ñi da nga koo war a respecter am na lu ñuy tuddee ay tabu tabu mooy loo xam ne mooy lu du kenn du laal am na yu bari yoo xam dañu koy teg fële kenn du ko laal xëy na yu bari bari mën naa ci biir mën naa ne ci biir waaye kenn du ko laal loolu ñu di ay tabu yooyu itam askan wi rek da nga ko am yooyu dañ ko war a respecté yooyu yëpp da nga ko war a booy tas xabaar da nga ko war a respecté kon waroo joxe bataaxel boo xam ne nii day jam yëg-yëgu nit ñi wala day laal seeni muqaddasaat yi nga xam dañ koo sacré ma nga xam dañu nanguñ ko kenn ko laal yow nga ñëw dal ci kawam loolu itam wax dëgg yàlla kuy tas xabaar ku nekk war nga ko bàyyi xel du lay mukk nag nga naan liberté d'expression maanaam am sañ-sañu wax rek tax na lu ma neex laay wax kon war naa am sañ-sañu taxaw saaga kilifa goo xam ñëpp dañ koo jox cër tey ni ma am ci yenn média yi yonent bi alayhi salaatu salaam ku nekk xam milliard ci ay nit ak lu topp ci ay millions wala boog sax lu ko ñoo ne ci gannaaw yonent bi alayhi salaatu salaam nga xëy génne ko ci image wala nga génne ko ci film wala nga génne ko teg ci moom wax ju ñaaw joo xam ne nii mënees koo nettali loolu defe naa ne sañ-sañu wax sa xalaat àggul foofu. fii ci sunum réew ci misaal ñun ku nekk xam na ne nit ñi dañoo fiir ci seen diine pas-pas diine bi am doole dafa am doole ci nit ñi kon fi làq ka balaa nga koo laal la nga cay wax war nga ko segg bu baax a baax sunu sëriñ si dañ leen jox cër ku nekk xam ne cër bi ñu leen jox tey kon balaa nga ciy tudd kenn ak loo am am sañ-sañ wax sa xalaat war ngaa xam boo leen di tudd na nga leen di tudde ak la ngay wax ci ñoom ndax loolu mën naa taalum réew mën naa daal mu def naa ne gis nañ ko fa ba tàyyi koo xam ne ni ab sëriñ la sàllalu waxuma sax di wax wax yenn waaye sàllalu rek la ko def sàllalu googu jur na coow lu du jeex ci réew te tey gis nañ yi jàll ci xabaar yi xëy na loolu nag ci xale yi ci la ëpp xale yu ndaw yi ak ñi nga xam ne nii yenn jumtukaay lañ yor di bind àgg sax daanaka ci wax wax joo xam ne nii di su ko mën a di su ko mën a nett kon képp koo xam ne nii yaa ngi yor jumtukaay bi mel noonu war ngaa fexe ba xeet yooyu ma tudd léegi suñuy cëslaay suñuy tabu yooyu nga xam ay laalaake la te moo tënk askan wi askan woo gis la koy tënk mooy tabu yooyu tabu yooyu mooy yi nga xam nañ ko fay bàyyi dinaan lii daal nañ ko bàyyi mënuñu mun yi kenn du ko laal kenn du ko jéem a gëstu kenn du ko jéem a xalaat waaye daal nañ ko bàyyi ndax moo ñu lënkale bis buñ ko ubbee rek ba mu ne fàng rek askan wi tas loolu moom lu wér la te ku nekk xam na ne askan dañ koy faral di misaal nee nañ la mi ngi mel ne aw say sayu mat matt moom balaa bu fekkante ne kenn takk ko du tudd aw say ay ay matt lay tudd bu tasaaroo ay matt lay tudd kon balaa tudd say dañ koy boole takk ko léegi nag li nga koy takkee nag mën naa nekk findifeer gu dëgër ak buum gu dëgër mën naa nekk sagar wu ñor xomm waaye lu mu ci mën di doon boo ko xeebee ba tas ko moom ba dagg ko dootoo amu say ay matt ngay am askan wi it am na yu ñuy xeeb yu ndaw yu ñuy xeeb ci biir fi ne yooyu moo tënk mbooloon bis bi ñu ko waxee ba tas ko ba ñu ko wuññ mbooloo mi tas loolu moom ñëpp war nañ cee bàyyi xel te loolu nag ñiy tas xabaar am nañ ci responsable mag a mag boo xam ne nii danañ ci am am na ci solo tey defe naa ne coow yu baree bari judd na ci àddina bi lu ko waral mooy li ñuy wax maanaam da ngaa blasphémer da ngaa da ngaa taqal pas-pasu nit taqal pas-pasu nit ci crime yi ñuy def ci àddina ci la bokk. te loolu itam day bëgg law nag bay bëgg dugg si ci suñuy réew te ñun xamuñu ko woon bu njëkk ñu war cee yow kon yooyu yenn la ci yi nga xam ne nii yaakaar naa ne mën nañ koo tënk ci lu jëm ci ki nga xam ne ni moom mooy joxe xabaar bi kooku kon sart yu baree bari daje na ci moom te moom bu jaaree yoon rek li ci des lépp mën naa jaar yoon ndax xam moom mooy mooñ xabaar bi moo koy moo koy traité moo koy segg nam koy joxee itam li ci ëpp ci moom lay dellu moo tax su jaaree yoon li ci des mën naa jaar yoon moo tax bataaxel bi duñ ci yàgg jëmmi bataaxel bi boppam mooy mooy message bi ngay jàllale moom xëy na mooy contenu bi li ngay jàllale loolu xëy na leer na naññi mooy war naa nekk lu leer naññi moom ci boppam bataaxel war naa leer war naa nekk loo xam day amal njariñ nit ñi waaye war nga caa sàmmoonteeg tam war naa sàmmoonteeg dégg-déggu nit ñi fi ñu toll xelum nit ñi fi ñu toll nga waxee ak ñoom foofu yaakaar naa ñëw na ci xaddis yonent bi jàngale ne bu ngeen di wax ak nit ñi na ngeen wax ak ñoom fi seeni xel toll am na débat yoo xam ne nii boo ko génnee ci publiquement di ko def du am njariñ la muy yàq moo ëpp la muy jariñ ndax nit ñi duñ ko mën a dégg ak guñ ñu koy mën a dégg moo tax ku nekk da nga am degré boo xam ne nii fa la sa xel toll bu ñuy wax ak yow dañuy wax ak yow comme nag rajo bi ñëpp koy déglu kon dañoo war a sàmmonteeg xelu nit ñi fi mu toll ñu leen di jàllale la tolloog seen xel te ñu mën koo dégg mën koo xam tem leer mu leer naa ñëpp ba ki koy déglu du du jàpp ne lii la bëggoon a wax loolu tam képp kuy communiquer nga bàyyi ko xel mooy maanaam li ñuy wax fasax maanaam am man-manu wax wax ju leer daf ciy am solo mooy tax ki lay déglu bu la déggee du fa jógee naan kii lii la bëggoon a wax baat yi nga koy waxee itam lu nu war a tànn la waroo jëfandikoo baat yu ñagas wala baat yoo xam ne nii dafa tegginewul di ko wax kanam mbooloo mi ñëpp di ko dégg wërta nekk ci biir tam ay loo xam day wuññi ay suturay jàmbur yoo xam ne nii boo ko waxee bu fekkee même fekkee defar nga ci jublu la ci juddoo ci yàq moo ëpp la ngay moo moo ci mooy ëpp doole foofu la nga jàpp ne moom lay defar xëy na ay tomba gi ni yoo xam ne nii buñ ko ci bàyyi xel mën nañoo dimbale ñun bu fekkee ay muslim lañ te bëgg tas xam tasum xabaar moo xam ne nii dana dëppoo ak lislaam mooy war nañ caa bàyyi xel ne na leeral li tax yàlla wàcc ñu ci kaw suuf waxoon naa ko léegi. kon bataaxel bi ñuy jàllale ñun ci suñuy tas xabaar war na caa bokk la muy leeral mu leeral nit ñi lan moo tax yàlla wàcc ñu ci kaw suuf. lu am solo la maanaam ñu bare bari fi nekk ni boo leen waxoon tey sëñ bi yow looy def ci looy def ci àddina bi duñ la tontu xamuñu ko ñoom xamuñu te nit nag bu xamul lu muy def fii loolu ñu bari xamuñu ko maanaam loolu dafa war a leer ci nit da ngaa war a xam ne lu tax nga ne ci àddina bi lu tax ngay dund maanaam fu ma jógee lu ma fii def fan laa jëm ay laaj la yoo xam ne ni ku nekk da nga koy war laaj sa bopp kon ñu ñun war nañ leen dimbale nit ñi ba ñoom ñu xam lu tax yàlla bind leen wàcc leen ci kaw suuf buñ ko xamoon tey lu baree bari dana defar bokk na ci lañ ci war juddoo mooy ñu fexe ba nit ku nekk da nga am ay warteef am ay yelleef da nga am ak ak yelleef am warteef ñu fexe ba yooyu ñu koy màndaxe waruñu rek fu ñu toll di wax nit ñi seen i ak seen yelleef di leen ko wax rek du ñu leen wax seen i warteef déedéet nañ la wax li la war ak sa ak sa yelleef ci façon boo xam ne nii dafay màndaxew bu ko defee maanaam bu ñu ko defoon fii de tey muy leer ci bopp nit ñi ñaxtu yu baree bari dana wàññi ndax bari na koo gis muy ñaxtu tey te la ko war ci warteef moom defu ci dara moom defu ci dara ba noppi fu mu toll di kaas. tey ci misaal tey mën ngaa ne ci dëkk boo xam da ngay gis kuy kaas naan man amoon lamp sama mbedd amut lamp te moom mës ta fay impôt te impôt yi ci la ñuy liggéey pour defar lamp yi waaw kon yow waroo bu fekkee nangoo fay impôt waroo laaj dara ndax ci impôt yooyu nit ñuy fay ci la ñuy sukkandiku ba defar yooyu ñu soxla woo kon xamal nit ñi ne am ngay ak am ngay yelleef am ngay warteef ba fexe nag ba mànd xew dana tax yëf yi dana wàññiku war naa nekk itam risaala boo xam ne nii bataaxel boo xam ne nii day puus nit ñi ci dox jëm ca kanam ci wàllu mbaax nag laa wax ñu bañ a sukkandiku rek wala focaliser wu rek ci yoo xam ne nii ay yu yu yu satxiyaat maanaam yoo xam ne nii ci kaw nii yoo xam daal wax dëgg yàlla du mbir yu xóot lool lool lool. wala boog ñun loolu ñu di stratégie de taxfiil maanaam mooy fexe ba nit ñi nga dévier leen dévier leen ci li ñu waroon xalaat duñ ci xalaat la ñu waroon wax duñ ci wax nga occuper leen ci débat boo xam ne nii amul benn njariñ ñu ne ca passe temps bu dul jeex te fekk na bàyyi na leen seen priorité yëpp ñu bàyyi ko teg ko fële loolu itam dañ ko war a bàyyi ci. bataaxel kon bataaxel bi ñuy jox nit ñi war naa nekk bataaxel boo xam ne nii dafay xamal nit ñi situation bi ñuy dund ak ban taxawaay lañ ci war a am ak naka lañ ko war a jëfee waaye warut nekk loo xam ne ni dañu koy jox nit ñi ñu ne cay débat débat boo xam ne ni ba fàtte ñun la ñu waroon ak la ñu waroon def lépp ñu fàtte ko te loolu dara du ci juddoo loolu tam ci am na solo war nañu fexe tam ba fexe ci nit ñi ñuy jëmbat ci ñoom yëg yëgub am kàttan akuk dogu am kàttan akuk dogu ci ne man lépp loo xam mooy sama warte fës naa yéene wàccoo ak moom loolu bu ñu ko defoon defe naa ne ñu baree bari lu baree bari mën naa soppi ko mooy fexe ba nit ñi gëmal seen bopp ne man lii sama warteef la du ma xaar ba kenn di ma ko laaj dama koy def ndax sama warteef loolu bu leeroon ci bopp dafa am yu baree bari du leer ci bopp nit ñi waaye bu leeree yooyu mën na cee jóge kon yooyu yenn la ci yi nga xam ne nii xëy na bu ñu ko bàyyi xel ci bataaxel bi mën naa doon maanaam tasum xabaar moo xam ne nii dana dëppoog ni ko lislaam bëgg ki nga xam nag mooy mooy déglu waxoon naa ko léegi déglu moo gën a jafe wax nga am maanaam man manu déglu moo gën a jafe foofu nga am man-manu wax moo tax kiy déglu moom ci boppam dafa am warteefu ko war donte nag maanaam kii kii wax dana ko dimbale la muy wax dana ko dimbale waaye moom dafa am lu ko war ndax ku nekk maanaam xam nga dégg ak déglu dañoo bokkul dégg moom maanaam bu ma waxee yaa ngi dégg déglu nag mooy nga am yéenee déglu nga am yéenee dégg mooy déglu déglu kon képp koy def day fekk nga am yéenee déglu ba ngay jël yéene déglu nag yéene ji la ngay jël ngir dégloo ko nag mooy tax la ngay déglu noonu nga koy dégg mooy taxit nga dem déglu barab sàngam képp kuy taal rajo bala ngaa taalu rajo képp kuy taal télé bala ngaa taal télé waroon ngaa xam man lan laa bëgg a déglu tey lan laa bëgg a seetaan ci misaal tey nga ne man kat tey damaa bëgg a déglu sama mbirum diine kon bul bul bul jël télé boo xam ne nii du wax ci diine nga ne ci misaal ay xabaar laa bëgg a déglu jàppal rajo boo xam ne nii xabaar yu wér lay wax waaye nag ñun ñu bare bari ñun dañuy taal télé bàyyi noonu rek wala nga taal rajo bàyyi noonu bu ko defee da ngay dégg rek di dégg loolu nag kon day yow ta loolu nag kon yow mooy la ngay déglu yow amoo ci benn amoo ci benn taxawaay loolu nag ci ñàkk a mën a déglu ci la bokk kon yéene ji ngay jóg yow ngir déglu loolu ci la bokk ñu bari ñu ngi jàmbat naan internet bi day yàq day yàq day yàq mais internet du gratuit kenn du ci dugg booy dugg da ngay jënd connexion connexion bi ngay jënd balaa nga ko jënd war ngaa xam lu tax may jënd connexion lan moo war a tax may war war a connecté wu waaye su fekkee da nga am xaalis dem jënd sa connexion ñëw connecté wu mooy waral lu ñëw lu génn nga xool ko loolu kon maanaam salik amagoo yow man manu déglu kon man manu déglu nit ki da ciy former boppam mooy tax itam moom doo ko déglu ak xam rajo ba ngay jàpp ak rajo bi nga xam ne nii doo ko jàpp yooyu kon defe naa ne bu ñu ko tënkoon ci ci li jëm ci fànn boobu mën na si naa tënk foofu léegi nag li ma waxoon léegi dañ jukki ci bennat yoo xam ne nii ay yàqu-yàqu la yoo xam ne nii dana juddoo ci tas tasukaayu xabaar boo xam ne nii amul jubluwaay bu baax la muy mën a yàq mooy léeg-léeg bu ñu ko xamoon tey moo li ma waxoon léegi ne mbir dañ ko xam ne ci safaanam loolu foofu lay dugg lu xëy na lu baax ak lu bon nag loolu waxoon naa ko léegi lu xaw a jafee waxtaane la waaw ndax ndax ndax ndax dafay dafay sukkandiku ci delluwaay bi moo tax ñun fi ñuy delluwaay ne nangam baax na wala nangam baaxul ci jataay bi ñu toog moom mooy lislaam kon la lislaam ne baax na moom la ñu naan baax na lu mu ne baaxul ñu ne baaxul keneen nag mën naa am beneen delluwaay boo xam bokkut ak ñun biñ war a waxtaane moo tax yàqu yàqu-yàqu ci maanaam ñi koy waxtaane ñi koy wutal ñi koy xamle biñ ko gëstoo biñ ci gis ne moo ci gën a tënku dañ ne yàqu mooy nga jëfandikoo wala boog nga ñàkk a jëfandikoo jëfandikoo woon bu baax mbir mu nekk la ko tax a jóg bu fekkee jëfandikoo woo ko noona jëfandikoo woo nga jëfandikoo xam day yàq loolu dañ daan ci tënk mooy li yàq moo tax bu fekkente ne dañu la yegg da ngaa yor taskaayu xabaar loo ko war a jëfandikoo wax nañ ko léegi mooy tasaari xabaar bu wér ak yu mel noonu yow jëfandikoo woo ko noonu waaye di ko jëfandikoo ci loo xam ne nii da ngay sànq nit ñi di leen réeral boobaa yaa ngi dugg ci buntu bu yàq soo ko jëfandikoo ci ngir am ci xaalis wala yu mel noonu yaa ngi ci jëfandikoo jëfandikoo yàq ak yeneen yu mel noonu yoo xam ne nii bari na foofu kon bu ñu tàqalee li ñu waxoon léegi rek mooy mooy mooy xamle ak propagande ak publicité bu ñu ko tàqalee dañuy daal di gis yu baree bari yi nga xam ne nii dana ci ñëw yàqu-yàqu yu ne bokk na li koy jur mooy ger gi ma waxoon léegi mu dugg ci biir tasum xabaar yi da ci yàq lu baree bari manque de formation bi maanaam ñi ñu waroon formation bi ñu war a am mu des niveau culturel maanaam maanaam seen niveau culture culture bi ñu waroon am niveau culturel bi ñu waroon am léeg-léeg day des. ku ne xam na ne booy booy communiquer da ngaa war a am culture bu mat sëkk bu yaatu mooy tax ni ngay communiquer bunt boo dugg xëy na dana la dimbali ca leeral ga léeg-léeg itam ñàkk spécialisé wu da ciy feeñ professionnalisme daf ciy ñàkk gum ci ñàkk daf ciy feeñ par parloo daf ciy feeñ wut ci xaalis daf ciy feeñ yooyu yëpp day feeñ ci biir jumtukaay yooyu te ñun dañoo gisoon ne mécceem tas xabaar moog mécceem jàngale ñoo yem moog mécceem faj ñoo yem bis bu la ci xaalis jiitalee rek jàppal ne dugg nga ci buntu bu yàq képp koo xam da ngay jàngale nga dem ba xaalis jiital la képp koo xam da ngay faj nga dem ba xaalis jiital la képp koo xam da ngay joxe xabaar nga dem ba xaalis jiital la jàppal ne génn nga ci buntu bu defar dugg nga ci buntu bu yàq loolu nag tasaaroo na ci yëf yi lu baree bari foofu nag bu fa xaalis duggee nag moo tax yàqkat yëpp ñoom dañ ciy profité buñ gëmee buñ xamee ne yow bu ñu la joxee xaalis nga jàppale leen rek mën nañ laa financé moo tax groupe de presse yu baree bari léegi am na ay financement yoo xam ne ni mi ngi commencé dugg moo tax seen financement tam ñu war koy gëstu ci fànn yu baree bari li ma waxoon léegi tam ne yàq ak defar nag mu ngi mu ngi aju ci fa ngay dellu ñun nag ci suñuy aada ak suñuy cosaan ak suñu diine ci la ñuy dellu ne nangam baax na wala nangam baaxul foofu tam liñ koy tax ñu koy waxtaane mooy léegi da ngay dégg ñu naan la éthique ak déontologie di ko waxtaane ci wàllum média ci wàllu tasum xabaar ñoom dañuy wax ne ñun suñu éthique ak suñu déontologie moo ñuy guidé waaye nag éthique ak déontologie boo mënta gis tam dafa am dafa am référence fu ñu koy delloo référence boobu nag moo ciy feeñ am na éthique boo xam ñu ngi ko tëgg taxawal ko ci lislaam am na éthique boo xam dañu ko dëgg taxawal ko ci alal am na éthique boo xam dañu ko dëgg taxawal ko ci aada ak cosaan kon fa muy dellu foofu mooy feeñ ci éthique ak déontologie ba ngay waxtaane yow moo tax ñu bare ba dañu leen di forme bu ñu leen forme ba dañu naan man sama éthique sama déontologie la ñuy gëm te xamuñ ne référence ba muy dellu ba taxawal loola mooy référence boobu moo dëppoowut ak ñun moo dëppoowut suñu dëñ ne dëppoowut ak suñuy aada suñuy cosaan moo tax ñun dañoo gëm ne éthique ak déontologie bi ñuy tegal taskati xabaar yi war na noo fexe ba mu dëppoo ak suñuy aada ak suñuy cosaan ak suñuy pas-pas ak suñu diine ci misaal tey mën ngaa gis ñu ne la sàngara am ñoll ci misaal ñoll jaay ko ñun dañ naan baaxul ndax lislaam moo ñu jaayu ñoll baaxul waaye tey ki nga xam ne moom moom gëm na ne nit ki lépp lu mu mën a def ba am ci xaalis moom loolu baax na moo tax moom bu ko neexee mu publicité am ñoll ci rajom bu ko neexee sax mu baaxal ko ci rajom nit ñi mën koo jëfandikoo ngir gëm na ne nit ki war nañ ko bàyyi muy mën a jëfandikoo la muy gañe la muy gañe xaalis mu ko ci jëfandikoo kon kon référence yi foofu la ñuy wuutee tey ki nga xam ne nii ñaawteef dafa am ñu ne fait divers la mooy ñaawteef bu réy réy am na ci barab sàngam ñu ne nangam yooyu ñaawteef yooyu xëy na du neex wax fii ñun bu dee ci lislaam lislaam def nañu ñaawteef bu bu amee nañ ko saafara fa mu am te gas ko suul ko fa kenn waru ko siiwal waaye am na koo xam dafa gëm ne moom comme nit ñi dañoo am droit ñu informer leen information lu mu lu mu sensible sensible ñoom dañ cee war a jot kon daf leen ko war a jox kon éthique ak déontologie bi mu sukkandiku moom foofu la waaye bu sukkandiku woon ci lislaam bu fekkoon def kon référence am lislaam la du jàllale xabaar bu mel noonu kon loolu ci benn la ci wuute yi nga xam mën naa am ci cosaan yooyu moo tax ñun yàqu-yàq yi nga xam ne nii moom la ñu bëgg a tudd te ñu jàpp ne mi ngi yàqu-yàqul yoo xam fes na ci biir tasum xabaar mi la tax ñu tuddee yàqu-yàqu la ñu ngi sukkandiku ci lislaam keneen nag mën naa sukkandiku ci leneen ne loola du yàqu-yàqu loola mbirum boppam la dañ ciy wuute am na yàqu-yàqu yoo xam day dellu ci wàllum yar bi yar bi ñu yar nit ñi wala boog defar gi ñuy defar nit ñi ku nekk xam na ne tey jumtukaay yi tasum xabaar daf bokk jumtukaay yi am solo yi ñu jëfandikoo ngir defar nit ngir yar nit ñi waaye itam nag yàqu-yàqu yu baree bari ñëw ci yar bi mi ngi jaaree ci jumtukaay boobu. waxoon nañ ko léegi benn ngi nii mooy bi nga xam ne nii mooy symbole yi nga xam moom la askan wi am di ko fonk di ko di ko di ko toppatoo nga ñëw néewal ko doole xeeb ko tuutal ko loolu am na ci misaal tey waxoon naa ko léegi. ñun bu njëkk suñuy suñuy mag suñuy sëriñ kenn du leen sàllalu yow nga ñëw taxaw ci rajo bi di leen sàllalu jaar seen tur di leen sàllalu loolu ku nekk gis na gis na li muy jur njiitum réew ci misaal ci ñun kenn du ko sàllalu ndax kilifa la dañ ko war a jox cëram yow nga di ko sàllalu yooyu gis nañ ni muy fese te day dem bay fes di tasaaroo ba ci biir ndaw ñi di ko màggaale bu ko defee ñoom dañuy jàpp ne cër bi ñu waroon a jox mag ñi loolu ay kenn waratu ko def moo tax léegi day gën di màgg ndax nit ñi dañuy jël ci rajo yi ak télé yi di ko ci déglu dégg ñuy sàllalu kilifa yi di jaar seen tur directement bu ko defee muy màgg ci xale xale itam di ko duumagaale di ko jëfandikoo loolu wuute na ak suñuy aada wuute na ak suñu cosaan wuute naa itam respect bi ñu war a jox ñun suñuy mag bokk na ci baat yu bees yi ñuy fent fi mu nekk nii baat yu saa yoo xëyee dégg baat bu fees bu ñu fent jaar la ko ci média bi mu tas nit ñi di ko jëfandikoo te duñ bàyyi xel ci ne ku fent baat ku nekk fent nga melokaan bu bees saa yu indee baat bu bees mooy fent fent nga jikko ju bees loolu tam duñ ko bàyyi xel fi ne maanaam série yi ngay seetaan ci télé yi baat yi nga gis ñu koy fent di ko dugal ci wax ji bu subaa boo xëyee da ngay gis boo xoolee jikko yi nit ñi da nga ko ci commencé di ko ci gis boo fekkee am nga seetlu dara kon nit ñi seeni melokaan ay baat moo leen di orienté fi mu ne suñu melokaan yi nga gis nii ay baat yu néew moo ñuy orienté moo koy moo ñu moo ñu jublu leen fi ak lu leen fi ci ay baat rek la tënku moo tax baat bu bees saa yoo ko fente indi nga jikko ju bees te fan at yi ci gannaaw fentoon nañ ci baat tuddi woon ko génération bul faale maanaam bul faale ku nekk xam ne bul faale mi teg ci wolof tey xale yi nga gis yëpp ñu nekk ci mbedd mi ci maanaam loolu moo leen jur ñu ko doon yar jikko jooju moo feeñ ci nit ñi léegi nit ñuy soloo faaleetuñ ci dara nit ñuy waxee faaleetuñ ci dara ni ngay wate sa bopp faaleetu ci kenn yooyu moo loolu moo ko jur baatu bul faale boobu te baat la yoo xam dañ koy fent dugal ko ci biir baat yi bees yi baree bari yaa ngi koy dégg muy jàll ci théâtre yeeg yu mel noonu loolu day fent jikko yu bees te jikko yu muy fent mën naa bañ doon jikko yoo xam ne nii dëppoo naag jikko yu ñu bëgg ñun te loolu kon dana ci feeñ ci yàqu-yàqu ci la bokk léeg-léeg itam ñi nga xam dañoo ëppal ci seen diine wala ñu dañoo ëppal daal nit ñu ëppal ñu dañuy jaar ci jumtukaayu xabaar yi tasukaayu xabaar yi di tasaare seen tookee ëppal jooju ci biir nit ñi di ko tasaare ci nit ñi ñu jox la rajo antenne micro nga nga nga ngay ngay ngay xiirtal nit ñi ci ci ëppal maanaam teengal moo xam diine la moo xam moo xam pas-pas la moo xam ci aw làkk la moo xam lu mënti doon nga di ci xëcc ci nit ñi li ñuy wax maanaam maanaam maanaam maanaam maanaam racisme wala boog apartheid nga di ko dugal di ko jaarale ci jumtukaay yu xabaar yi léeg-léeg itam yàq yi ci wàllu yar bokk na ci nit ñi daam dem ba tàmm ay baat yoo xam ne nii bu ñu ko masaan dégg dañuy ub seen nopp am na baat yoo xam boo ko masaan dégg da nga am xaaral ma faxa samay nopp man ci dégg léegi boo ko waxee daan ah yow de man de li ma dégg de moo gën a garaaw loolu te loolu dañ dañ dem ba tàmm ko da ma da ngay dem ba dañ koy banaliser banaliser mooy loo xam ne nii da nga ko daan dégg sakk say nopp léegi boo ko déggee du la def dara doo doo ko yëgal sa yaram sax loolu ci xabaar yi bokk na ci li ñu ciy def te mooy baat yi ñu daawul dégg rarement lañ ko daan dégg ñu fexe ba saa yu ñu xëyee di ko dégg ñu dem ba miin ko. am na lu ciy jaar itam di yàq ci wàllu yar mooy soññi nit ñi ci ay jikko yoo xam ne nii jikko yu rafetul la ci misaal tey jumtukaay buy buy publicité am ñoll xëy na loolu aaye nañ ko ci aaye nañ ko ci. ci ci ci médias yi nga xam moom lañ gën a xam waaye ba léegi boo jaaree ci internet bi ak yeneen da nga koy gis ñu ñu publicité ñu koy jàll te net bi ci jumtukaay yooyu la bokk léegi léegi ñuy publicité am ñoll di publicité pon ak yu mel noonu di ko xiirtal xale yi ak di leen wan drogue nuñ koy jëfandikoo ak ñi koy jëfandikoo yenn yu mel noonu ba den ci xiirtal ak yenn ci film yi nga xam ne nii film yu yu doy waar la di di la wan yenn yoo xam ne waroo koo gis yooyu yëpp dafay dañ koy jaarale ci tas tasawaay xabaar yi mu yàq lu baree bari ci nit ñi loolu am na ci am na ci xëy na nag bu dee ci médias yi ñu gën a xam ni ci nga xam moom ngi du ci feeñ léeg léeg dañ koy aaye waaye mi ngi jàll ci yeneen jumtukaay yi nga xam ne moom kenn mënu koo saytu saytu saytu ko yombut boog waaye su ma la waxoon tey ñun fii ci sunu dëkk rek ci Touba maanaam maanaam loolu li ñu ciy jàllale tey xoolal rek maanaam léegi li ñuy tuddee pajum cosaan kenn weddiwu ko kenn weddiwu ko waaye ku ne xam na li ne ci biir. te tey bari nañu ci lor ñoo xam ne ni rajo yi ñoo leen lor ndax publicité maanaam wax gu ñuy wax ci diw man gu mën a faj nangam ak nangam di ko tagg di ko tagg di ko tagg ba nga ne xëy naa xëy naa xëy dem seeti ko dem mu lor la te loolu ci xabaar foofu lay jaar yooyu yàqu-yàqu yooyu mi ngi jaar ci biir xabaar yi tasum xabaar yi di dem ci nit ñi te loolu xëy na leneen la waaye almuhim daal noonu la demee. bokk na ci tam léegi xale yi nga leen wan yu mel noonu di leen pousse ci ñu koy essayer ndax ndaw loo ko wan il faut que mu jëm ko jéem koo ñam ba xam nu mel te bari na yu ñu leen wan yoo xam ne nii te boo xasee ñam dootoo ci génn bokk na ci yàqu yi muy jur ci wàllum yar tam mooy nit ki tàmmu beru tàmmu beru maanaam maanaam sa temps bépp nga jël ko def ko seetaanum télé wala nga jël ko ci wàllum maanaam nekk ci internet bi connecté wu di seetaan loolu da ngay dem dem ba da ngay li ñuy wax te waxu te waxu mooy nga nga nga nekk nit koo xam dootoo mën a jaxasoo ak nit ñi. dootoo mën a jaxasoo ak nit ñi daanaka yow rek yaay mën a nekk foo toll yaa ngi yor sa télé yaa ngi yor sa commande télé di di xool wala nga yor sa portable di manipuler ci ngay sëgg loolu dafay yàq tam relation yi nga xam ni moo waroon dox suñu diggante. ci misaal tey mu leer nañu man léeg-léegi danaa dem ci nit ne damay seeti nit damaa bëgg dem ñu toog waxtaan xanaa xanaa ki ngay seet dangaa bëgg dem ngeen demante ko toog waxtaan bu ma ñëwee ne salaamaaleykum toog si saal bi mu daal taal télé bi léegi nag waxtaanu dakk na ñun ñëpp ci télé bi la ñuy nekk ba heure bi ma waroon dem dem jot ku nekk dem si yoon lañ waroon waxtaan dootuñu waxtaan ñun ñëpp télé bi la ñuy sëf ko def léeg-léeg nga dugg saal boo xam ne ku nekk yaa ngi sa portable di manipuler kenn du wax ak kenn ñàkk waxtaan googu nag ak relation yooyu dootu dund bu yàggee nag day jur ay umpande suñu biir mu jur ay yàqu-yàqu yu baree bari yoo xam foofu lay jëfandikoo yokk ci nag maanaam psychologiquement lim maanaam wérét yi mu lay jural te waxoon naa ko léegi da ngay dem ba dootoo mën a jëflante ak nit ñi dootoo mën a jaxasoo ak nit ñi te foofu da nga ko fay tàmmee léeg-léeg itam gis mu ci yàqu-yàqu ci jaar yoo xam ne nii da ngay taal télé ci misaal nga ne tey kat programme diine laay la ñuy teg waaye dañuy teg programme diine bu daggee rek bu jeexee rek ñu teg ci loo xam ne nii safaanu la ñu doon wax la xale bi di ko seetaan kon la nga lañ defoon ci moom lépp tegaat nañ ci lu ko yàq lu ko raxasat ba mu ses ci sàng-tàng bi loolu tam ci yàq yàq ci wàllum yar ci lay juddoo yoo xam ne ni mi ngi juddoo ci taskaayu xabaar yi jëm ci ndaw ñi loolu tam xëy na bu ñu koy waxtaan dañuy bëgg waajur yi nga xam ñoom ñoo féetewoo loolu jël ci seen i matukaay xëy na ñu gën a tënk lu jëm ci wàllu xabaar yi moom yaakaar naa ne leer na nañu taba tasaare xabaar bu du dëgg ak yenn yi nga xam ne ni waxoon nañ ko léegi ñëwoon nañ ci léegi ak yenn faits divers yi nga xam ne ni dañ koy jëfandikoo ak di tasaare yoo xam ne nii day jur par parloo ci wàllu xeet wala bodd gont ci wàllu xeet ci biir askan wi yëpp dafa indi bari na guerre yoo xam am réew yoo xam tey dugg nañ ci guerre lu ko taal rajo moo ko taal wala jumtukaay xabaar xabaar yi am na yàqu-yàqu yoo xam ne nii mi ngi jëm ci li ñuy tuddee féexal féexlu féexal sa xol maanaam tamal la déglu yenn yenn yi ba dootoo ba nga chronique ba nga xam ne ni foo toll daanaka dootoo ko mën a bàyyi ak yeneen ak yeneen ak xam naa kon dañuy gën a tënk daal di ñëw ci ñun nag ñun jullit yi ñun muslimoon yi waxuma sax ñun waaye ñun muslimoon yi ñun jullit muslim yi bu nu waxtaanee loolu pare nag léegi suñu digg ak jumtukaay yooyu média bi war na am luñ ci tënk yaakaar naa ne défi bi gën a mag bi nga xam tey moo tax ci kanam réew yi nga xam ay jullit ñoo ay muslimoon ñoo fa nekk mooy moyen de communication. ku nekk xam ne tey ngànnaay li ëpp doole ñu koy jëfandikoo léegi te nekk ci loxol keneen ki ñu jàmmar lool mooy moyen de communication léegi xarañ guñ ci xarañ ci image bi nañ koy traité ba mu jox la loo xam ne day mel ni aljana kàddu gi nañ koy defaree ba mu neex ba boo ko déggee mu jeexital ci yow forme gu ñuy forme ñi ci liggéey ba nga xam ne nii dañuy bàyyi dañuy mën a jeexital baax a baax ku nekk xam ne ngànnaay loo xam ne nii ñu ngi koy jëfandikoo di yàqal lislaam lu baree bare tey xoolal baat yu baree bare nañ ko yàqee. tey ñu fexe ba lislaam ñu lënkale ko ëppal tataruf mooy extrémisme maanaam ëppal tey foo tuddee lislaam ñu ne la jullit yi ay extrémiste lañ xoolal tey ni ñu fexe ba lënkale lislaam ak terrorisme irhab xoolal tey baatu usul yi maanaam maanaam li ñuy wax intégriste ni ñu ko yàq léegi ba tax sayta ñi xam li muy tekk sax boo leen ne intégriste nga ñu ne du ma intégriste yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne nii ñëw na te ñu ñu koy jëfandikoo ngir yàqu xoolal tey maanaam seen seen yooyu moo xam léegi seen jumtukaay yooyu ma waxoon léegi tey nit ñi ko sëppee tey ba lu ñu bëgg a jàllale ci ñu di ko jàllale ci loolu kon dañuy gis ne kon défi bi gën a mag ci kanam sunu kanam tey mooy naka la ñu war a jëflanteeg moyen de communication yu bees yooyu. loolu nag liñ ciy tënk lu tuuti mooy ñu xam ne teel a xam ne ñun ñii ne ay muslim lañ waaye ñu xam ne maanaam média ngàddanaay la loo xam ne ni paaka ñaari bor la kon nañ koy jëfandikoo ci la sikk si nekk waaye nekkul ci jumtukaay bi ci boppam. loolu loolu xàmmee gi dafay baax ndax ndax bu njëkkoon da nga daan gis xëy na wàññiku na léegi waaye da nga daan gis maanaam borom xam-xam buy buy fatwaa ne ne ne seetaan télé daa aram seetaan télé dafa aram du ko du ko aram loolu am na dégg nañ ko fa tey am na borom xam yu mag a mag yoo xam ne nii fatwa fatwaa nañ ne di araamal seetaan télé ndax loolu ku nekk xam na ne xam na ne télé moom araam ak dagan mun ci am moom nga xanaa lañ cay def mooy araam wala mu dagan loolu kon jumtukaay la boo xam ñaare loolu war nañ ko teel a xam kon ñu teel a xam ne solution bi nekkul ci araamal ko nekkul tam ci xañ ko nit ñi bi may waajal gëstu bi rek dama cee doon naa lire benn livre boo xam ne nii waa ji mi ngi doon wax maanaam basul mu baas mooy mooy mooy mooy direct yi ñuy def maanaam comme comme seen comme satellite yi nga xam da ngay fële ngay toog di di joxe say image ñëpp di ci jot. gis naa ko ci proposé woon ne nañ fexe ba satellite yooyu dootu dugg suñuy réew lu xaw naa yàgg nag tey téere bu xaw a yàgg moom loolu proposé woon nañ fexe ba satellite du mën a dugg ci suñu réew ba duñ ko seetaan xam nga loolu du solution léegi moom ña ko doon wax léegi sax ñoo ko ëppale far léegi. kon mbir mi du ci araamal ko ak yu mel noonu waaye nañ bàyyi xel ci ne noonu lay demee xam naa waxtu waa ngi gën a jege kon yooyu yenn la ci war nañoo fexe tam ba objectif ñu gën koo tëgg gën koo teg ci yoon loolu xëy na duñ ci yaatu lool maanaam ñiy wax ci tey te nekk ay taskati xabaar yoo xam ay nit yu ay jullit lañ ñu fexe ba tàggat leen tey rajo yi wax ci wàllum diine yu baree bari boo ca demoon ña cay wax dañ leen du tàggat tàggat ba ca wax te xam nga ni kàddu rek wax rek wax maanaam sa kàddu rek. dañ ko war a defar dañ ko war a defar ndax neexaay baag na muy mel dafay am lu muy def ci nit kon loolu ci la bokk ubbi tam yeneen xanawaat xam naa kon suñu waxtaan dafa mel ni waxtu bi daf ñoo tënk kon daal ñu bàyyi xel ci maanaam lu am solo la loo xam ne nii waris na cee mën a yaatal bu baax a baax xëy na liñ ci tënkagum noonu buñ ci jàppandee yaatal gi dana gën a mën a nekk ci yeneen jamono xëy na liñ ciy waxit nag tekkiwut ne maanaam taskat xabaar yëpp ñoo mel noonu. waaye dafa am ñu ne ci biir ñoo xam ñoom dañoo mel noonu xëy na dañuy tànn ñoom seen waxin ñoom léegi dañuy wax ne la ñoom saxaar gi ñëw waxtu yitteel leen saxaar gi duñ ñëw waxtu moo leen yitteel ñun tam kon bu ñuy waxtaan fii taskat xabaar yi nga xam ne jaar nañ yoon di def seen liggéey mu jaar yoon taxuñ ñuy wax waaye ñu ne ci biir te liggéey te liggéey nu jaarul yoon moo ñoom ñoo tax ñuy wax te nag wolof day wax ne saabu du fóot boppam kon nag ñun dañoo bëgg nekk saa boo xam dañu leen dimbale bañ mën a fu bañ dimbale leen ci póot mi loolu moo doon solos waxtaan wi asalaamaaleykum wa rahmatullah